mission si Touba léeg-léeg sax xaaji xaaji bu di la wax 3 heures du matin 4 heures du matin nga war a jóg pour des si mission boo xam ne ñoo xool si bassin bi la toppatoo si bassin bi lii la bi xam ne travaux yu ñu entamé la lu ñuy amoon yaakaar la bu baax a baax lu ñu yaakaar tamit bëgg la euh, Samba Ba mu ngi koy wax nag 2012 laa ñu ngi dund chaque fois noonu lay demee mu taw euh, bassin bi toj ñu ñëw

Mouhamed Abdoulaye Diouf di am yaakaar tamit ne ni ko chef du village waxee sànq te liggéey bu ñu ko defee ba pare dina sottil mbir mi maanaam bu ñu ko pare ñu ne waat inondation amaat na bassin bi tojaat na wala yeneen difficulté am nañu di am yaakaar te bu ñu ko paree ndox mi bu ñëwatee nawet dina jàll loolu la ñuy ñaan mooy suñu yéenee am nañ si yaakaar tamit ndax ki xam ne moom lañ confié liggéey bi di moo liggéey modi di Gueye yàgg nañ ànd di liggéey mat na 25 ans léegi temps boobu man sous préfet laa am jeune sous préfet moo mu nekk jeune ingénieur ñu ànd di liggéey boobu ba léegi mun liggéeyam xam naa ko xariñam xam naa ko nekk taalibeem xam naa ko bëgg tamit réewam xam naa ko moo tax am naa yaakaar si liggéey bi bu ko defee bu pare bu sottee incha allah toog kenn dootu si wax li des nag mooy ni ñu ko doon waxee sànq rek liggéey bi yemul lekk si Kër Niang bërëb yi inondé du kër rek Kër Niang bërëb yi inondé weesu na Kër Niang kon nag bëgg nañ bu ñu paree fii mu nekk benn série travaux bu jeex ñu mën a yi beneen série travaux yoo xam ne si yeneen durée yoo xam ne day inondé si biir Touba yooyu la ñuy song pour que bu ëllëgee li wàllu assainissement si biir Touba ñu mun ko jeexal comme waa Touba daanaka wàcc nañu si wàllu jàng. yaakaar naa ne activité gouvernement bi la tamit mun a yokk loxoom si yeneen fànn yi fànn assainissement nag fànn bu rëy rëy si Touba fànn bu rëy rëy la si soxla Touba yi yaakaar naa buñ ko réglé une bonne partie soxla Touba yi dañ réglé wu. moom wax la ne tamit nag gouvernement bi mu ngi siy liggéey DG rappelé na sànq en terme de milliards activité li ñu si dugal yëpp mais moo wax leen ne jeexagul am na yeneen yu ñu siy liggéey te loolu wàllu hydraulique la wax. wàllu assainissement mais am na yeneen wàll yoo xam ne tamit si biir assainissement toujours ñu ngi si liggéey si wàllu environnement ñu ngi si liggéey boo ko dugal si biir Touba. am na usine mbalit yaakaar naa usine mbalit Touba rek la am di Dakar bi dina réy yëpp amul usine mbalit usine mbalit Touba la am ñu ngi fiy def usine boo xam ne bu paree lépp loo xam ne mbalit la si Touba dina ko jël ñu defar ko mun ko dugalaat valoriser ko mun a liggéey mais également ñu ngi fiy def loo xam ne projet eaux usées dégg naa sànq ñuy wax que dañuy indi ndoxum euh, eau usée dugal ko si biir bassin bi boo xam ne noor nawet dañuy pomper loolu normalul mais xam naa ne bés bu nee ba pare as projet eau usée bi bu boobaa loolu dina deñ loolu tamit beneen projet loo xam ne day ñëw yokk si si wàllu assainissement ak yeneen yeneen projet yoo xam ne président mu ngi ko fi développé kon mun naa ne assainissement di santé yeneen activité yoo xam ne gouvernement moo ko war a yore président taxaw na si jublu si pour ñu mën ko liggéey ñun nag suñu wàllu mooy wax leen li président def ndax ñoom lañ fi teewal dañ leen wax bu baax li mu fiy def suñu beneen wàll bi tamit comme ñoo ko fiy teewal mooy taataan seeni soxla xam ne ne seen soxla ñu ngi koy taataan bu baax ñu ngi def tout pour mun ko jottali heureusement nag tey ñu ñuy déglu day gën a ñu si li xam ne jottali nañ ko si wàllu assainissement bi si wàllu conduite bi ñaan yàlla tamit euh, loolu continuer ñu mun a def yeneen i projet yeneen i projet ma dellu saa rek témoignage leen leen si moo Gueye yeggale fa bi may xamante ak moom si xuloo pourquoi parce que dafa ñëw di liggéey si sama arrondissement ma ne ko si liggéey bi dinaa ko arrêté en tant que sous jël arrêté parce que dama bëgg liggéey bi waa arrondissement bi gis si seen bopp xale yi ñu jël leen si entrepreneur yi nekk si arrondissement ñu jël leen si si xuloo boobu lañ xamante mais mun naa leen wax ne si booba jël na si arrondissement bi loo xam ne jox leen si liggéey bi loo xam ne ñoom ñëpp seen xol sedd la kon ne ko di ko sëñ Abdou ñaanee sànq yaakaar moo liggéey na leen ko defal dina fexe ba effectivement si dëkk bi waa Kër Niang ak entreprise yi ak ñu nga xam ne mun nañ liggéey lu si nit mën a def dina la ko jox ndax xamee naa ko loolu muy si jikkoom kon maa ngi leen di gërëm di leen sant.